ay bés ci tabaski bi regroupement chauffeur yi nekk ci gare ceer bi ci diwaanu luga taxaw téeméer ngir xeex war gaynde yi ndax dañuy yàqu seenub liggéey ñoom ñi nag daal di bloqué fi nga xam ni mooy buntu luga bi léegi bëgg oto transport war gaynde bi kenn doot fa war gaynde affaire sàcc la mun la ñàkk xëy na ñu ngi sàcc mais nag fësal ko tam duma ko nangu waaw war gaynde moom dañuy yàq liggéey mooy ñun ba ñu chauffeur chauffeur si ku yor permis tey dund ci oto ñëwal garage nga liggéey fa soo liggéey bu ngoonee loo fa war a am nga am ko mais wargaynde yi amuñu licence amuñu sañ-sañu daw. wargaynde yi nag seen côté ñoom ni jàpp ni. chauffeur yi bëgg mënul nekk. mais lan moo tax ñoom ñoom transporteurs yi ñoom ñoo ñu ëpp doole ñun ne ñun ay xale ñu bëgg a liggéey lan moo tax ñoom bu ñu jëlee ay oto duñu ko jox. du mosuñoo ñëw imposé ñu loolu de bu ko jëlee seen jarbaat lañ koy jox ak seen mbokk mais mosuñoo ñëw ne la yow mii chauffeur allo Dakar nga yor ah kaay ma jox la chauffeur kaay ma jox la ah ma jox la transport nga nga bàyyi oto allo Dakar bi fii koo ko fi defal mu bàyyi ko ñëpp am terme transport fii. mais dama ne la war gaynde dañ leen a war a jox autorisation ñuy daw di dem di dikk parce que ñoom ay xale la ñu ngi doog a dugg ci àdduna te dañoo yor njaboot. waaw te seen oto yi nag moom la ñëpp gën a taamu ko seen set bi mu légaliser oto yi coowal transport bi nag doon loo xam ni bu si autorités yi daal di waxul dina ëppi loxo